ñun wa Kaolack nangaan ñoo taxawal benn kurel senegal va mal ñoo taxawal suñu courant ken waru ko yok ñoo taxawal ñoo lank ñoo bañ lu tax ñoo lank ñoo bañ parce que directeur senegal bu fi jugé won daf ñu digon nañu courant bi am nañ ay bénéfice bay jël courant di kay jégané ñu digon ñëñu ci campagne yi passé suñu président son excellence Macky Sall jox nañ ko cër lool mu ne suñu courant dina ko wañi tey nag yokk nañ courant bi 10 pour cent 10 pour cent moo nekk maanaam ñi nga xamante ni 2 mois la ñuy fay 10 pour cent moo nekk diil bu nekk 1000 francs lañ la siy dagg ñu ne léegi 6 pour cent 6 pour cent moo nekk maanaam ñi nga xam ne par weer borom doole yi kon léegi nag rong ñu baadoolo mooy sim ci rëy buur kon nag léegi nag direct baadoolo mooy sim ci rëy buur ñun nag duñ xaar ba nguur gi rey suñu baay rey suñu yaay ñu soog a jug lu tax ma wax loolu dafa am sama benn xarit boo xam ne baayam machine wol la yoroon nekk fii Sénégal di wol courant bi cher mënul fay mu daw dem Gambie Gambie doxatul muy baara ñi ngi di baara ñi ngi mu toy genn aduna yalla ko yalla xaar àjjana ñu dégg loolu dinañ xam kan lay waxal ñun nag Sénégal il est temps ñu jug ñun nag tey Sénégal il est temps ñu taxaw parce que tey da ngay xool tey gi nii courant bi suñ ko tey xool yokkee dañoo war a yokk tey solde yi dañoo war a yombal tey mais tey gi ni courant bi cher na cher boo xamante amna sama ben xarit facture 400 000 lañ ko jox amna sama ben lay dawal facture 150 lañ ko jox bi ay factures 150.000$, il est temps ñun askan bi ñu jug parce que tay gis ngeen lu Dakar def nañ marche fait xamanteni pacifique te pourtant suñ jugee kilifa yi naan tay gi ni jeunesse Sénégal dañu indiscipliné jeunesse Sénégal amuñ yar marche bi passé est-ce que tay doret xolal est-ce que nit xoolal damm na fa kon ñun na dañoo am ay gouvernement yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom di ngi fooyee jëri askan bi am ay xool gouvernement yoo xam ne di ngi nax tey Sénégal lu tax ma wax loolu son excellence moo waxoon ne tey gi nii nguur gi lu muy wax si ay téléphone ay milliards milliards la te nee nañ ñoom cent euh, cent milliards lañ lañ tegoon si kii bi subvention bi léegi nag loolu nag ñu tey loolu mënatuñ ko ñu taxaw tey gi ni ne Sénélec dafa am ay bor waa mais nañ wax Senelec bor yu am ay mairie la ak tey ko gouvernement bi léegi nag tey nag ñoom bor yi tey xoolal gouvernement bi ñu bëgg ñun tey ñoom ñu bëgg tey ñun ñu fay ko ñun ñun tey askan bi ñun nag dañoo war lank dañoo war a bañ parce que tey gii nii mënuñ nangu tey gii nii suñu tey euh, kilifa yi suñu xool ministres yi seen mille litres bon xool d'essence quatre-vingt-quatre ministres et quelques cent soixante-quinze députés askan bi tey attanu loolu nañu waxante dëgg président Macky Sall dañu lay ñaan nga dawal yërmande parce que tey ñun mii suñuy waajur ak suñuy dëkkandoor ay néew ji doole lañ dañoo bëgg nga jàppale leen Kaolack nag dañoo pare parce que tey conférence de bi suñ neexoon def ko si xolal bureau suñ neexoon def ko si ay salle mais dañoo ñëw def ko xolal suñ koñ ñu léegi nag ñu ngi leen di alerter dinañ organiser ay marche pacifiquement fii si Kaolack nangaan ñi xam ne waa Kaolack ay bañkat lañ Kaolack xamuñ yoon bu ñuy jaaree mais incha allah rabi Kaolack nangan yëpp dinañ génn su fekkee tey gi nii président Macky Sall delul ginnaaw